asalaamaaleykum mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na si institut Pasteur ci lëkkaloom ak ministère bi weer wàllum weer gu yaram ak fondation bii di Find ñoo taxawal benn projet ngir rek jàppale prestataires yi ci naka la ñuy diagnostiquer wàllum sibiru ak yeneen i feebar yu ni mel waaye rek xool naka la ñuy yemalee antibiotiques yi ba benn tout tànk du ci loru certificat de mariage ak ay njeexitalam teewul divorce yi bëri ba jéggi dayoo agent bu état civil ba nekk ca Yoff moom di ko mittitlu mbayum légumes yi ak ay jafe-jafeem ca jandeer nekk ca département bu Thiès ña ca yëngu ñoom ñu ngi méttit lu njëgum jiw gi liggéeyum aar ak ndaw ya ca bëgg a dugg di ngeen ci am ay tettalu artiste visuel bi di Pape Samba Ndiaye li moo ci gën a fës nes tuuti ñu yaatal ko asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu dooree rek wax ci wàllum wér-gu-yaram institut pasteur bu Dakar ci lëkkaloowam ak ministère bi yor wàllum wér-gu-yaram ak fondation bii di Find ñoo taxawal benn projet ngir taxawu prestataires yi ci wàllum diagnostic jàngoro yi ci mel ni sibiru ak yeneen i infection virale mel ni biir buy daw projet bi nag dina tax ñu xayma naka la ñuy jëfandikoo antibiotiques yi ba benn tout tànk du ci loru projet bi daañu ko tàmbalee ca Mbour Fatick Tambacounda Tambacounda ak Kédougou pour ñu teewlu ay kàddu njiital surveillance épidémiologique ak poste vaccinal ca ministère bi yor wàllum wér gu yaram di docteur Boli Diop ci micro la ñëf na. ñu Sénégal ci tout tànk yi ay feebar yu nga xam ni dafay am yaram bu tànk leen yëpp tamit feebaru biir bi doo tamit dafa leen yëpp donc ñu def benn agri moo nga xam ni dafay tax vraiment euh, ñi nekk waa Kër di faj gën a mun a xarañ ci nu ñuy gisee feebar yi. moo si gën a xarañ tamit ci ni ñuy joxe médicament yi. gaal ñu tëddee booy xool képp ku ñëw ci wàllu kër docteur am yaram bu tàng li njëkk xaat moom mooy sibiru parce que tamit dañu nekk ci dëkk yoo xam ne sibiru daf fi am doole euh, ginnaaw bu ñu xoolee xale bi yaram bi tàng ni amul sibiru fii dañ tàmmoon di joxe systématiquement antibiotique sans pour autant xool lan mooy euh, euh, indi faw feebar xam nañ ni ci jàngat yi yaram bu tàng xale bu nekkul sibiru. mun na nekk doomu jàngoro bu ñu wax bactérie wala doomu jàngoro bu ñuy wax virus te bu ñuy xool ci yooyu euh, doomu jàngoro virus yi ëpp te bu ñuy xool ñun suñu nu ñuy fajee xale yi bu ñu gisee ni amul siw rek dañ koy jox antibiotique alors que war nañ def yenn gëstu pour xool est-ce que yaram bu tàng boobu am na ay mandarga yu wane ni euh, virus la wala bactérie la pour ñu joxe waawal wala déet antibiotique algorithme bi nag dafa ñëw nag pour jàppale ñu ci loolu. pour bu ñu xayma xale bi ginnaaw bu ñu ko defalee TDR pali mu négatif ñu xool naka la ñuy euh, wàññee vraiment prescription antibiotique loolu bi ñu koy jëfandikoo ñu ngi koy jëfandikoo si ñeent euh, bërëb ci Sénégal loolu nag dañu xayma bu baax xool euh, bërëb bu njëkk bi mu ngi nekk mbuur loolu la ñuy wax poste santé tu Tukulóor foofu lañ koy jëfandikoo tam ñu jëfandikoo ko Fatick ci poste bi ñuy wax Njaay Njaay ginnaaw ñaari bërëb yooyu dem nañ tam ba ci biir Sénégal Tamba poste santé de pont tamit ñu jëfandikoo euh, jumtukaay boobu ak tamit Kédougou ci poste santé Dalaba bi ñu ko jëfandikoo nag wax dëgg yàlla am nañ ci ay euh, euh, mandarga yu am solo ñu wax euh, ci li ñu naan certificat de mariage nga xam ni état civil la koy nit ki di amee mu am solo lool ndax liggéeykat bi ko am dina ci gis ay njëriñ lu bari mel ni rek fayum njaboot ji wàññite ci impôt yi ak yeneen yu ni mel donte nag ndaw yi ñu ngi gëstu léegi ngir am kayit googu do teewul jamono ji divorce yi bëri na lool agent ba nekk nag ca état civil bu Yoff moom ñaawlu na ko te di koy métitlu bu baax ci reportage bi mu am ak ay satu Faye Bodion ak Leah Niafuna ni extrait de naissance wala certificat de décès certificat de mariage itam nekk ab pièce d'état civil euh, buy firnde diggante ñaari way dencante ci kanamu yoon mu mel ni nag askan wi ñoo ngi koy gën di yittewoo bu ñu sukkandikoo rekk euh, fële ca mairie bu Yoff lu ëpp juróom ñetti téeméer acte de mariage lañu daal di enregistré niki daaw rekk agent état civil bi nii rekk ab jéego la bu am solo. bulletin de salaire un célibataire est différent de bulletin de salaire d'un marié dañ ciy tenir en compte léegi nit ñi ñu koy commencé xam di ko wut si fii waaw waaw amul nag kenn koo xam ne ki dana li liggéeyuma ci nguur gi wala non waruma ko am menuisier beeg métalique beeg tailleur beeg képp koo xam ne ki daal am nga sa soxna ngeen nekk yoon may na la nga dem def sa certificat de mariage téye ko ndax ëllëg. maître El Amath Thiam nekk ab consultant ci wàllum droit. xam-xam màcc ci lépp lu jëm ci wàllum contentieux ne rekk certificat de mariage nekkul ab obligation waaye nag mën na jox avantage yu bëri liggéeykat yi. jigéen bi nekk am jëkkër di liggéey fa nekk fonctionnaire amoo certificat de mariage am na avantage yoo xam ne da war a am ci ay IPM ak ay ay ay ay logement mais mënoo ko am. parce que dañuy jàpp ne sa lebete parce que day ba day gën a métti yow léegi nag boo ko dugalee nag impôt bi da xool day wàññeeku juge da koy war indi këyit wane ne sëy amoon na certificat de mariage moo koy prouvé kon nu ñuy def ba am këyit bile yan yoon la ñu war a jaax agent état civil bile di ci tontu ni ñi mari moom nañu nekk ñoo xam ne ni dañoo euh, euh, maanaam dañoo am déggoo seen biir parce que mënoo ñëw tey xëcc benn xale bu jigéen rek ni ko dem nga nekk sama jabar day am aussi ay témoins ay personnes yoo xam ni ñu ñu ñu kii lañ ay majorité juridique ñooñu la ñuy jël seen i kayit mais wuy dencante yi moom dinañ leen laaj seen i extrait de naissance dinañ leen laaj ay certificat de célibataire pour wane ni ndax demuñu ci beneen gox am fa beneen mariage bu fekkee ni dañ ci am ci ñoom ñaar ku ci marié woon divorce tamit dinañ la laaj kayitu divorce délai bi nag mooy ay wéy dencante moom waruñoo buñ leen mayee ba pare waruñoo toog lu ëpp juróomi weer juróom benn te ñëwuñ ci mairie bi déclaré même bu fekkee ni askan wi ñu ngi gën di yittewoo kayit bile di certificat de mariage li ñuul ci soow mi mooy kayit bile du yàgg lool ndax divorce yu bari ci biir Sénégal ci xibaar yi ba tey dañuy wax lu soxal mbayum légum yi ca Thiès nag ña yëngu ci mbayum nawe chou-pommé ak it kaani salade moom coono la ñu dëkkee ndax seetu nañ ni yëf ya cher na te métti na lool rawatina njëgum jiw gi suñuy ndaw demoon nañu ca Thiès ca département bu Thiès commune bu jandeer seeti leen ñu teewlu seen reportage mbayum légumes yi dafa nekk activité bu yàgg lool mu ngay am nag ba tey ci région yu bëri rawatina fële ca Thiès ca commune bu ñu naan Diender béykat yi ñoom ñu ngi wéy ba tey di def li fi seen maam yi bàyyi woon am na sax ñu yëngu foofu ci mbayum poivron mbayum poivron nag métti na te it dépense yi cher nañu lool. waa métier mbay moom ñun dañoo judd daanaka fekk suñuy papa suñuy maam di ko def fere bu ma xoon a bëri parce que premièrement boo tàmbalee nga di jëndi semence. presque pot yi mu ngi jar ay trente quelques mille léegi boo ko boo préparé fi nga koy def maanaam pépinière bi na durer presque ay un mois dix jours boo ko jëmbatee di nga waajal terrain bi avant avant nga jëm di nga waajal terrain bi ak yenn jafe-jafe yi muy am maanaam par rapport euh, suuf si des fois mu am yenn ti euh, xaw a jafe tuuti yoo xam ni nga ko waajal ak frais yaa ngi def ak yëp en même temps nga soog nag. commencé jëmbat boo tey itam ak jafe-jafeem mën ngay continuer xaj na muy avancé ndànk-ndànk ngay def si ay frais muy avancé ndànk-ndànk ba nga commencé produire mu commencé produire euh, loolu daa xam naa am na si mais itam dina durer moom par rapport waaw moom dina xaw a durer quoi minimum bu amee euh, traitement yi suuf si boo ko traité peut-être mën na durer de six à sept mois de six à sept mois presque huit mois sax peu près des fois mu dem si quoi. ginnaaw poivron boobu ñuy amal foofu ca jëndeer di ko fa béy am na ñoo xamante itam dañuy yëngu ci mbayum navet gi mbayum navet gi itam ñoo bokk jàngoro ndax lépp a cher rawatina essence bi nga xamante ne dañ koy faral di jëfandikoo te léeg-léeg saay njëkk yi duñ ci gis seen bopp. suñu mbay daa wax dëgg yàlla ñun sonn nañ su jaa ngi kilo ah, saako 3000 boo demee marché looy am boo bëggee jox oto bi jox ko sóor bi jëndi saako jënd fi ndi fier baykat bi lu muy am du am dara. ndax baykat bu fekkee guttab essence ñaari junne ñeenti ma lay jar te toolam dina ko liggéey la ëpp ñetti bidon jaaji mi toolam léegi mu dem si juróom-ñaari bidon ala moom ñëwagul fii moom ñëwagul përee ñëwagul métti na métti na ci béykat dëgg yàlla moom mbay métti na. ba tey ca jëndeer suppome itam dañ ko fay bay suppome bi nag moog yeneen yee yem ndax seen njëkk dafa cher lool. aw suppome jiw bi moo jëkk a seer. parce que jiw lu dee dee rek di nga ko jëndee ay 17500 parce que loolu noonu dafa seer xam nga nga bëgg si jëndi te ay ñetti pat ñeenti pat te suñu mbay demeewul noonu loolu maanaam dafa seer torop dafa seer waaw mais su moom bu fekkee parka bi moom di nga ko parka ay un mois quinze suuf xam nga loolu distance la nga baykat tamit di nga am ay quatre mois daal normalement quatre mois normal léegi loolu boo ko boolee day nekk si mois yi manqué tuuti kon nga xam daanaka mbay dafa xaw a metti ñiy yëngu ci mbéyum légumes yi nag ñoo bokk li ñuy sàkku moo di rek nguur gi jàppale leen ba ñu mën a jot ci ndox mi mën ci arroser seeni tool na mu waree ñoom itam ñu ngay wéy ba tey di sàkku nguur gi mu yombalal leen seeni transportu produit ba ñu mën ko wàcce ci marché Sénégal gi yépp ñu jeexal xibaar yi wax ci wàllum liggéeyum artiste lu ñu mën a jàpp ci liggéey bile lan la ñu mën a ñaax ndaw yi waaye it artiste ya ca ne naka lañu war a mën a amalee seen liggéey ba mu jaar yoon ñu teewlu ci ay leeral yu artiste visuel sénégalais bi di Pape Samba Ndiaye. dafa doon euh, métier bi nga xam ne métier bu noobul la waaw mun naa ne métier bu noobul la bi nga xam ne tey mun nga ci dundu mun nga ci jëriñu waaw loo ci jox moom. mooy nu ko Souleymane Faye di waxee artiste du daanu artiste moom boo respecté sa liggéey jox ko li mu la war a jox di war na la ci mun a fay li nga xam ne di nga ci mun a dund malgré que nag dañ nekk ci dëkk bi nga xam ne pour nga dund ko pour nga mun a faye ko ci aaru surtout art plastique bi art visuel bi dafa doon li nga xam ne xaw taxu kaa yomb noonu waaye dafa doon li nga xam ne tamit boo amee ay yoon ak ay ñi lay dimbali ak ay conseil ak xam-xam bu ak xel bu sell ak euh, yëg-yëg boo nga xam ni dina la mën a permettre tey nga mun a teg li nga xam ni dinañ ko mën a ràññee sur le plan national aussi bien qu'international. pour ñi nga xam ni da nga nekk jeune wala benn étudiant wala moo xam ki nga mënti doon bëgg a évoluer ci domaine artistique bi bon dafa doon li nga xam ni gëm-gëm la boo ko gëmee di nga ci sori euh, dafa laaj tamit jàng bu dee da nga bëgg doon artiste professionnel. comme laaj na tamit li nga xam ni ñi nga xam ne am na ay autodidacte ñi nga xam ni jàmmuñu formation. ñi nga xam ne mun nañ nekk artist tamit mun nga def formation bi nga xam ne niveau boo munti am mun nañ la jàngat tàggat la ba nga xam ni di nga mun a tey li nelaw ci yow di nga ko mun a euh, véhiculer génnee ko ba mujj mun nga ci mun nga ci tedd mun nga ci am liggéey defaral nit ñi lu taaru moo xam da ngay décorer këri jàmbur yi moo xam da nga leen defaral ay tableau proposer leen ko ak yeneen ak yeneen yeneen ak possibilité yi nga xam tey mun na def ci yow ki nga bëgg doon euh, parce que bi léegi nekkatul li nga xam ni waaw nit ñi nuñ koy xalaatee donc euh, c'est des possibilités. li may conseil sama mbokk artistes yi moom mooy ñu gëm li ñuy def benn euh, gën a original ci seen domaine def tamit li nga xam si spécifique loo xam ne ñoom la loo xam parce que art moom mooy yow la rek li ngay def et puis euh, jéem a gën a gën a gën a liggéey parce que mbir yi moom amul secret amul secret liggéey la rek waaw malgré que même boo occupé woo ci leneen art bi moom da koy jox li moom rek waaw te tamit waaw beneen conseil mooy maanaam artistes yi waaw art art bi da nga koy dominer bul mais bul nangu tamit bi nga xam ne mu mu dominer la bu bàyyee. mbokk yi li moo gënoon a fës ci ay xibaar sant ak ngërëm ñeena leen di sàkku ngeen di wéy di seetaan suñuy programme